yaakaar ak daramaan aram loo kumba caam ñoom la ñu yaakaar ñu xëy suba ñu gis loo xam ni on peut dire que ni miracle la ndax photo bi ñu ngeen koy gisee noonu ci image bi les images parlent d'elles-mêmes mooy mooy que ni photo ku tedd kooku photo kilifa googu dañoo xëy gis muy génne ndox alors ñu ngi ci kër famille bi nag ñu fas yéene see jël ay témoignages ñu wax ñu ñoom naka lañ ko dundee ak euh, yëf yi nan naka la demee soxna si maa lay nuyu ma bàyyi la nga yëkkati waaw asalaamaaleykum maa ngi leen fay yéen tamit. Mhm. yéen waa diaspora maa ngi leen nuyu bu baax a baax. macha allah tur bi naka la. man Kodou Faye madame Faye. d' accord yéen ngeen doon ay tiijaan yu bëgg seen sëriñ. ngeen di waajal gàmm gi te li ci jox li ci des ci ay waxtu bareetut ngeen xëy suba gis ni seen kilifa gi def ci photo bi boo ñu koy nettali nan nga ñu koy mën a nettalee yow mi ko fekkee. waaw man mi ko fekkee waa dama xëy fajar gi. comme sama goro démb ba nekk fi woon dafa génn. Mhm. ma xëy gis buntu néeg bi ibbeeku bi buntu néeg bi ibbeekoo fekk maa ngi root. Mhm. ci man par fajar laay root. Mhm. ma ibbi bunt bi seen ndox mi yëpp bëri si néeg bi fii. mais ñee ñu ngi nelaw après bi ma ko gisee ma delloowaat buntu bi ba pare bi ma xëyee. ma ne xaar ma yóbbu sama doom bi mu dem ouverture mu yóbbu ko bi ma ko yóbbu ba pare ma ne su ma ñëwee ma fomp kii bi ndox bi mais xamoon ndox mi nu mu demee léegi bi ma demee ba ñëw ma jaar marché ñëw fekk sëtam bi nga xam ne moo fanaanoon ci néeg bi moo jur papam pap joon na ma ñëw fekk ku mhm. góor la mu mhm. aj fauteuil yi di fobeere te boobu xam naa ne ndox mee ko sonal mhm. léegi si laa toll fee ma ne xale yi xool leen pap joon ne day fomp ndox mi ma ñëw ba fii man na ko yow fii yëpp saltel nga ko xaa ma ñëw fomp ko mun a ma dugal nga xool ndox mi fi muy wàccee si laa ne nii nag ma teen seen photo sëñ Babacar bi nag def écran ci man mu def écran ci man man laayeen laa taalibe sëñ naa li maamu laa alayhi salaatu wasalaam li ma gis tey dafa yéeme waaw sama goro bi dafa bëgg sëñ Babacar démb bi muy dem Popenguine mhm. dafa ne maa ngi dem Popenguine waaye sëñ Babacar dénk naa la sama néeg bi dafa bëgg sëñ Babacar hmm. lii il fallait mu feeñ moom loo wax mu ne sëñ Babacar dama ko ko xam comme ni ma ko xamee sama rëddu baaraam bi moo tax ma ne xale yi ibbi ndox mi rek ndox mi balla ma ne hmm. xale yi yéen xamuleen lii xale yi waaw ma lii yéen xamuleen ko ma ne borom gàmmu gi la hmm. ma ne sëñ Babacar foog mu wane boppam ndax sama goro mu ne ah, ma ne que dafa bëgg sëñ Babacar yaa lu mu wax danaan barki sëñ Babacar day toog di ndékki sax. macha allah dégg ñiy jàng yor kii sëñ Babacar yi day bàyyi ndékki li teg ka dem dab leen. macha allah fa bëgg sëñ Babacar. alors néeg bi wala salle bi ñu nekk euh, musul seen nawet comme noor. musul am ñu ngi fi ñaata yàlla musul am. musul seen door a am lu yéeme mu ngi nii di doog wàcc nii si suba ba léegi ndox mi day wàcc comme. kenn xamul fu ndox mi di jógee daal macha allah. te ndox mi ci photo lay jógee directement di wàcc. di wàcc di wàcc ci suuf di wàcc. ci ginnaaw amul benn mur boo xamante ne war naa am robinet war a war fuite war fi am war a dara am fi ndax dañoo wëri ci ginnaaw wër fu ne hmm. mais gisuñu fuite bi ñu fi dara ndax kër gi benn benn rek séparé ak beneen kër gi yéen bi ngeen ko gisee en tant que taalibe eh, ngeen dëkkandoog ay dëkkandoo yu bari fii ci Médina hmm. yéen donc dooloo leen si ay taalibe Cheikh hmm. eh, eh, seen kilifa gi wuyu si leen ci seen biir kër ban yëg-yëg ngeen ci am xanaa di ci am kontaante bu bu sant yàlla bu baax a baax gërëm sëriñ Babacar bu baax a baax a baax ndax ndox bi ba mu njëkkee génn bu si kàttanu yàlla la ñu njëkk am dañ ko jox suñu malaat bi ñu am ci kàttanu te yàlla na ko yàlla may wér te maire bii toog tam yàlla yàlla may ko wér may ko gudd fan ak wér ak fekkeek tal ci barke sëñ baabakat mi ñu yaakaar sëñ Babacar rek la bëgg yéen a ngi waaj jëm Tiwaawoon ñu ngi waaj jëm Tiwaawoon xam naa ndox mi moom du doy Tiwaawoon da ko fi bàyyi ci kër gi ñëw boole dox toqalal la ñu ne boo demee nga boole si sam-sam mhm. wala nga am noo ci boole fi ne suba ba léegi fii yëpp butéel la mais maye ba sonn man si suba laa waroon a génn dem mais mënuñoo génn mhm. waaw si suba ba léegi ñun ñaa ngi ñëw macha kon bërëb bi dina doon bërëb bi ngeen ni a faral di ki ngeen yaakaar muy ku tedd gi Serigne Babacar won na leen fi ay xar baafam kon bërëb bi nan ngeen ko fas yéenee def xanaa di ko wormaal rek def lu baax di def la mu bëgg di def la mu santaane ndax kër gi mhm. këru cosaan la mhm. kër gi kër gu baax la xamoon naa ne lii dina fi mës a génn ci mhm. àddina kër gii taalibe Serigne Babacar si moo ko moom rawatina maire bi est-ce que amoo leen ci benn siixi saaxa naan mm, est du leneen est-ce que du miir bi mooy indi chaleur ndox mi di fi wàcc est-ce que jàpp jàppoo leen dara lu dul seen sëriñ moo leen wuy si te ñu ngi jëm gàmmu moom la de suñu sëriñ moo ñu wuy si de te ñu di ko sante yàlla bu baax a baax ba ba ñi toll tiwaawan ñun waa tiwaawan ñu ngi woo naan ñu bàyyi leen su ndox mi mm-hmm. lu yéeme moo fi am tam ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant yàlla bu baax a baax mm-hmm. ndax lii tey bu ngeen fa fekkee woon bi muy ball fii dafa feesoon del kër gi dañoo recevoir ba sonn dafa mm-hmm. feesoon del ki nekk ci kër gi fii bi muy dem nga ne daf ne ba sëñ Babacar dénk naa la kër gi loolu la wax sëñ Babacar dénk naa la sama néeg bi parce que moom dafa danaan tëjal ma tëjal ma néeg bi dem daf may woo xool fay ma ne naa mun a ma xoolal ma sama néeg bi sëñ Babacar dénk naa la sama néeg bi loolu la wax bi muy dem. est-ce que du misaal ba mu waxoon ne bu ma rusutoon sama sama baay ku ma woo ci photo ma moom la ko defal nag tey looloo. misaal moomu mooy feeñ ci tey misaal moom mooy feeñ tey. Mhm. waaw moom mooy feeñ parce que ci euh, xale bi fanaanoon fii mhm. nee na moom dafa tëdd ba xaaju guddi mu ne nelaw dafa tëdd ba xaaju guddi nee na ngelaw bu bu bu bu moo doon ñëw ci moom mhm. nee na parenteer yi tijjeeku bunt bi tijjeeku nee après bi kii yeewoo après moo ko tëjaatal jërëjëf kontaan nañu yan kàddu ngay jeexalee tey xanaa di kontaan rek ci yéen di di leen gërëm di leen sant mm-hmm. seen déplacement bi ngeen déplacé ñëw si te tamit di gërëm maire bi bu baax a baax di ko sant mm-hmm. ndax lii yëpp liggéeyam la mm-hmm. waaw di gërëm tamit waa kër sëriñ Babacar si di ñaan sëñ Babacar si rabi yàllaaw antu mu jàppale ñu xéewal gi fi nekk te yàlla may ñu si mu saawan baawaan ci barke Seydina Mouhamed ñi ñuy ziar si jërëjëf salaatu wasalaam jaajëf merci maa ngi leen di nuyu te di leen ñaanal yàlla may leen wér ak wér la ngeen continuer seen liggéey bi ba màgget ak moom darajay Mouhamed barke sëñ Babacar Sy léegi nag maam booy bi ngeen yeewoo tey gis euh, lu mel nii lan ngeen yëg ah man bi ma gis kii bi tooy tooy hmm. ah, jaaxle rek si yàlla xam ne sëñ Babacar daal man daal mu ngi noonu rek sëñ Babacar daal hmm. amul morom hmm. jaaxle naa ci. Mhm. waaru naa ci waaye ba tey maa ngi sant yàlla. Mhm. ndax ndox xéewal la. darajay Muhammad. Mhm. barke sëñ Babacar Sy. kon de day mel ni gën a takk laxasaay gën a yeesal taalibe gi jëm ci moom. incha allah gën a farlu incha allah. incha allah dama koy gën a fonk. ci kantanu suñu borom kër sañ Babacar Tiwaawan kër sëñ Babacar yi kër maam Dias Mbengue ngi nii. da ngay génn kër sëñ Babacar dugg sama kër maam. maa ngi ñaan si yàlla. na hmm. nañu yàlla jàppale ñun ñëpp. amiin te may ñu wér. Hmm. ak wérle ak hmm. fekke ak tal. barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yow de kon jaratul ngay dem Tiwaawan na ndax xam ne da ngay dem Màkka génn gis Kaaba gi sa buntu kër jaratul ngay dem ngay dem Tiwaawan de yow xanaa maam boy ah. wala yaa ngi waaj dangay ngay dem Tiwaawan maa ngi waaj de Tiwaawan de. damay ñaan si gudd fan rek ak wér gu yaam bu ma dara jotul. bëgg naa dem bëgg nga dem. waaw ndax dama ko tàmm waaw booba dama daa ànd ak sama yaay di dem. ba sama yaay mënatul man ma màgg di demal sama bopp. macha allah macha allah macha allah macha ñaan si yàlla yàlla may ma wér goo xam ne. Mhm. tiwaawoon bu jotee ma dem si. Mhm. di kàntanu suñu borom. parce que borom guddi gi. Mhm. loolu ñaan yàlla. jërëjëf yaa booy. loolu la ñaan yàlla jërëjëf. yéen seen liggéey bi yàlla na leen si yàlla jàppale. amiin amiin jàppale leen si jàpp si bépp jullit. amiin amiin amiin ngeen di liggéey yal na leen ànd ak ngeen ànd ak wér. amiin ak wérle fekke ak tal. amiin amiin barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin jërëjëf yaa booy jërëjëf jërëjëf <laughs>